Mouhamadou Rassoul mbay ñu ngi lay nuyu di la dalal. jox sa wàccuwaay Elisabeth. Oh, waaw may fàttali ne yow yaay euh, délégué euh, représentant liggéeykatu euh, Sen'Eau tey ji Sen'Eau ngeen takk ay morceau yu xonk ñu bëggoon a xam lu ko waral. daal xanaa ñaxare naqar ak jaaxle ci sunu njaatig yi bii di Sen'Eau. ndax. di gan ci réew mi di defegu fi sax ñaari at. waaw. waaye nag balaa may tàmbali waxtaan bi dama bëggoon sargal delloo njukkal gërëm sunu liggéeykat yi nga xamante ne sama xel a ngi dem ci waa ñi KMS ñi nga xamante ne lépp fa lay déparé mhm. ndox bi tey bu ngeen koy naan ba si jafe yi nga xamante ne travail foofu ñu ngi koy dund teewul ñu ngi def seen liggéey na mu waree di jéem a wàccoog la ñu waroon teg entreprise bi di wàccoog askan bi ñoom ñooy liggéey traité ndox bi balaa ñu koy lancé ci réseau bi ba mu yegg si Ndakaaru bu ñëwee population yi mën ci bénéficier wu. Hmm. maa ngi leen di gërëm di leen sant. il fépp fuy usine rek tey collaborateur nekk fa maa ngi leen sama xel dem na ci yi ne ñooy ñooy nekk ci fi ci ci tranchées yu xóot a xóot yi di ay risques yu énorme di fa di fa liggéey ngir rek lépp de euh, satisfaire population bi ndax loolu mooy sunu cër bu njëkk balaa euh, tax nuyu wax waxu leneen. Hmm. loolu moo jiitu. Hmm. sargal naa travailleurs yëpp ndax ànd gu ñu ànd tey jii ñun ci bokk ñun journée naxar bi di ko mandargaal di ko firndeel ñoom ñëpp. et justement lu waral bi tey bu weesoo. naxar yi bëri na. Mhm. ndax boo xoolee ban fi toogee ba léegi. ñun daal gisuñu suñu bopp ci kër gi boo nu waxalee yàlla rek gisuñu suñu bopp ci kër gi. ci nan ndax lépp suy àq ak yelleef. personnel bu ngeen fa fekk emploi yi ngeen fa fekk. waaw da ngeen koy garder. Mhm. du ñëw di dàq kenn di wàññi personnel bi di def leneen. ñaareel bi personnel boobu avantage bi bu ngeen ko fekkoon moo am ko da ngeen ko fay da ngeen koy bàyyi ak moom bu ngeen ko mën lay yokk moom xalaatu leen ko bu leen ko xalaatoo wàññi mm-hmm. léegi nag waaye nag ñoom ñu gis ne ba ñoom ba ñu ñëwee ba léegi a day taale ba ñu ñëwee ba léegi mm-hmm. fourage daal daal dafa dël fi waaw dafa mel ni ñoom indiwuñu dara dafa mel ni daal ñoom ci wàllu koom-koom taxaw nu de. ñu bëggoon a xam mu gën a leer daal ci nopp euh, ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu tey ji lan ngeen di ñaxtu concrètement euh, jëmale ko ci Sen'Eau. am na ñu doon wax euh, waxu enveloppe de reclassement mooy maanaam natt bu ñu lay natt at bu at ba at ba at. Mhm. liggéeykat bu ñu ko nattee saytu ko xool liggéeyam ndax jaanul ci yoon ak yooyu noonu. Mhm. dafa war a avancer maanaam bu doon école la nga nekkoon CI da ngay dem CP. d'accord avancement boobu nag moo am problème na moom lañ di gën a fësal. Mhm. ndax xam nga loolu suñu kafa lay dem ku sa salaire yokku yaakaar naa ne sa dund day a naat. Mhm. waaye nag problème yu ëpp loolu lalu na ci problème yu ëpp loolu. Mhm. ndax lu ñuy wax euh, promotion interne am na problème ndax bu ñëwee au lieu ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon. nga xam ne am nañ expérience mën nañ seen liggéey nekk fi taaral kër gi pendant vingt trois ans nga xamante ne def na ko fi yaakaar naa ne ñooñu. boo ñëwee doo leen di formation doo leen doo ñoom dara. Mhm. da ngay ñëw rek ñu mel ni tar kuy tari ku mokkal bay tari waaye dañu préféré dem uti di ñeneen amuñu nag benn problème ak Sénégal parce que ñun ñuy recruter ay Sénégalais waaye jàpp naa société boo ko bëggee avancer expérience bi moom mënoo ko sànni ci suuf. Mhm. looy jël en la malheureusement defuñu ko. boo ñëwee ci suñu ay ak yelleef nag ñun duñu fekkee da nga xam ne nguur gi daf leen newoon bu ngeen bu ngeen leen mën a yokkal ngeen yokkal bu ngeen ko mënulee ngeen bàyyi rek lanu am. Mhm. loolu nag lañu gis ne dafa dañu commencé mhm. boo xoolee liggéeykat yi dafa am ñoo xamante ne dañoo am lu ñuy wax véhicule contrat. Mhm. boo accédé ci yi entreprise bi daf lay jox oto yooyu noonu tagga témbi na. am na ñu fi fal ba ba léegi amuñu oto am na ñoo xamante ne ay moto mooy moto releveur yu dugg ci yi di relever. dañ ay problème moto. ñii am na nii amuñu ñoom daal benn fossé social lañ fi créé boo xamante ne yow da ngay bokk nit ci poste aadama ak awa nga jël awa mu am lépp lu poste bi méngoo laaj nga jox ko euh, xañ xañ aadama. ñoom fu ñu sukkandikoo ci kumba am ndey googu kumba am ndey fu ñu ci sukkandikoo lu xew ba mu am par parloo googu. non dara si si kii parce que xam nga ne oto boo ko bëgg da nga koy jënd kenn du la ko may. Hmm. entreprise dafa nekk nag. loo xamante ne bu ko defee bu waroon jënd mille oto euh, cent oto tey jii dina tappale mu ngi nekk ci tappale gu rëy ba bañ jënd la mu waroon tey wala ñëpp jox ko ko ko oto jeex ni mu waroon jox parce que bu defee juróom-benn wala ba juróom-ñaar. Hmm. dana war a jox oto sax dafa am problème parce que ñu ngi ñëw ñoom di déemu pexe pour pour mun la xamee àq boobu noonu nga xamante ne oto bi bu jeexee ñu ñu sàkkal ko pexe waaw ay façon yooyu saabu gis na saabu dafa bokkoon dafa bokkoon dotation saabu parce que da nga koy de tenue yi mooy releveur yeeg plombier yeeg yooyu tenue yooyu ñu sol hmm. dafa am benn accord bu yoo xam ne da nga war a def saabu pour pour pour nettoyer seen yeeg yooyu ils doivent en bénéficier. Hmm. dañu war a euh, ndàmpaay genre la ndàmpaay boobu sax day tagga témbe balaa ñu koy joxe léegi leen toog ay weeri weer duñ ko jox liggéeykat yi ko man jàpp naa ne man ku mënul euh, faj loolu joxe saabu ku rek lay xëy si nga jox ko saabu pour mu fóot tamit ba lay liggéey le hmm. man damay jaaxal trop man loolu yëpp daal man jafe-jafe yii ñu mu mel ni daal ñun den dañu jógee ci avion wàcc si saret kon daal da dellu ginnaaw bu ma la déggee. bu baax personnel moom bu fekkee xaw ma ku ci gis boppam xëy na ñoom nag ñu ngi gis seen bopp. ñoom na ñu ngi ciy gis seen bopp waaye ñun gisuñu suñu bopp. Rasoul li ñu jaaxal mooy am na ay weer amoon nañ benn waxtaan gu ñu sekk. Euh, fii mm. ci euh, suñu rajo ngeen doon ci ngañ euh, lii di SDE mu mel ni tey jafe-jafe yi dafa toxu ñëw ci seen o. waaw toxuwul de problème yi ñoo bokkul. Ah. dañu am lu ñu amalanteeg SDE am lu nu amalanteeg CNO. lan amalanteeg SDE nag ba nu ci waxee xam nga yàgg na. Mm-hmm. amul benn changement amul benn changement suñu fonds commun de placement mooy natt bu nu bokkoon. Mm-hmm. moom lañ téye nag ñoom ñoo ko moom. te ñun ci natt boobu lañ yaakaaroon pour capitaliser capitaliser mooy action nga xamante ne ban fi grévé woon deux mille dix neuf. Mm-hmm. ba njaqare yi ak loraange yi mu juróon yëpp ci askan bi ba mu xewee nguur gi daf ñu mujj woon satisfaire jox ñu ñu am onze pour SONES ONAS ak ñun ñun am 8 pour cent SONES ak ONAS am 3 pour cent mais boo xoolee ñoom comme ay euh, këru liggéeykaay yu aju ci nguur gi lañ ñoom mët lu waraloon teew nag euh, euh, capitalisation ñoom def nañ ko mooy génne nañ seen xaalis génne nañ seen action ñun nag ñoo am problème fu mu toll nii ñàkk nu de. Mhm. ñàkk nu lu ko jëndee am nañ lu ko jëndee waaye comme ñee xëy na dañu mere nguur gi wala ñu mere ñun ñuy personnel bi parce que xëy na dañ jàpp ne ñun ñoo ba gañe woonu contrat jàpp naa ne xëy na ñoom dañu yaakaar ne ñun ñoo ñoo dañu war a mere ba xañ ñu suñu àq suñu yelleef te suñu ay trois milliards cinq cent millions ba ñu ko jox te ñun ci loolu ñu yaakaaroon pour capitaliser tey Poutine suñuy action te ñu jox ñu délai 31 décembre. Mhm. fal nañ suñu représentant ku ñuy teewal ca conseil d'administration waaye ba lay toogu ko fa moo lay war rek ne ka dem ak kii kiif kiif xëy na sax que gën koo demin gën tane tane parce que am na yoo xamante ne wax dëgg yàlla moom doon na ko respecté daal. kon ah, daal jàpp nga ne ci wàllum euh, lëkkaloog liggéeykat yi euh, seen euh, seen o SDE gën na ko taxaw. maanaam taxaw tane na ko waaw tare tane la. Ah, tane la waaw na def nañ nag waaye desoon na daal waaye ñii fi ñëw nag ñoo yées ndax ñan la ñu defaloon ñële bala balaa ñu dem lan ñu defaloon sax ñii dañ ñëw di ko salfaani waaw foo dem ay jafe-jafe la da xëy na waxtaan moo ko dul maye. Mhm. waaye bu ñu bu ñu commencé woon huit heures midi du tax problème yi jeex. parce que secteur boo jàpp rek am na problème. d'accord tey ngeen takk ay euh, sagar yu xonk euh, ñu bëggoon a xam ndax euh, teewul ngeen liggéey wala da ngeen fas yéene banque seen i yoxo ñu bëggoon a xam plan mhm. de lutte bu bees la boo demee ci dëkk Asie Asie yooyu yëpp fépp loolu la léegi rouge moom. Mhm. c'est une forme de lutte. waaw ñëpp a ko xam. Mhm. parce que moom ngay njëkk def mu nekk genre artu ñun nag ñu choisir mardi bi tey jii pour def ko. waaye nag mu tey nag mu tombé sunu njaatige bu mag bi di fi ñëw muy le ministre de l'hydraulique Serigne Mbaye Thiam. et justement da ngeen koo calculer wala euh, ko doon nëbb siiwaluñ hmm. parce que yaakaar naa seen njaatige bu fi ñëw war nga mun yëgal personnel bi bu fekkoon def nga lu baax ku nëbbutu rek. ak di lumtu di sa sa pexe la jubul waaye sa bis sa ñaata gi di la seet si yaakaar naa ne fekkee def teraloon na sa personnel jàppee moom nag nga war a jàpp ngeen seen gëdd di ngeen xamal leen seen si sa sama kilifa kat ñëw boo ko defee ñoo ko tertu tertu bu war waaye comme ñun nag ay syndicalistes leen te xam nañ ne réew mi lii moo fiy dox lii moo fiy fay moo tax ñu mandargaale ko tey di ko xaar ñu ngi bu ñëwee gisal ñu yu xonq pour ko suñu naxar suñu njaqar parce que ay la yéen ñoo leen fi indi ah ñoom ñoo leen fi indi alors que ñëpp ñu ngi leen doon diingat ne SDE moo waroon gagné contrat de façon yu mel yooyu noonu waaye ñun loolu suñu yoon newu parce que ñun kër gi koy yor amuloon importance. ku ko mënut mhm. yor parce que nguur ci moom la aju mu ku muy jox kër waaye suñu àq suñu yelleef. Mhm. néew na bëri na ba nu ko fekkelee koy bàyyee boo ko yokk moom kenn du xalaat. ngay ngay salmaani suuf wala di am loo ciy rocci. Mhm. bu weesoo tey takk sagar bi lan ngeen di mbébét lu ci topp. lu ñuy mbébét mooy may neen leen nag ndaje bu mujj mooy àjjuma bi di ñëw am nañ euh, jotaay. Mhm. ak ñoom bu fekkee defal nañu proposition bu leer. parce que bàyyi xam na enveloppe da ngay déterminer benn xaalis bu ñuy natt la. Mhm. ne lii def ci luy jëm ci personnel bi pour ci yokku te salaire at bu ne. donc janvier ba léegi lañ ko waroon lañ la koy boo boo avancé nga jóge woon CI dem CP ci début d'année bi lañ lay lañ nga xam ne nag CP waaye doo toog ba avril ngay dem di hmm. dabuti xam ne ndax moom yokku na wala yokkuwul boo ko defee mu commencé at lay ñu yokkule waaye nag ñoom ba ñu janvier ba léegi ba ñu ngi dugg ci weer parce que bii fay nañ ñu ngi fay salaire donc c'est sûr que avancement woowu du dugg ci bi donc moo koy mooy wax 6 su may wax 6 mois janvier à juin rien réglé waaw muy 6 mois nag loo xamante ne ëpp na ñun nañu dañu mënul financièrement wala lan. rien réglé kon bu ma la déggee six mois ak léegi ba ngeen tàmbalee waxtaan yeeg seen ba tey. amul dara lu ngeen ci am lu sotti. tàggatémbe la def dara sottiwu ci dara sottiwu ci ñu ne nag yéen lañ jox réunion dernière chance mooy ajjuma bi. ajjuma mooy seen àpp. waaw di leen artu nag ne bu fekkee ne dañu kon ne ci yi ñuy def nii di euh, bëgg wiiri euh, comité bi nga xamante ñoo war a toog négocier ak ñoom di jaar ci suuf di woo ay nit ñoo xam lu leen dig wala loolu ba ñooñ di beddeeku di bëgg def naka sudul noonu bëgg euh, toroxal personnel bi diggante leen xañ seen aax loolu du fi amee du fi jàll bu àjjuma mu jotee mm-hmm. di leen toog ak ñoom bu ñu d'accordulee xam nga nag doo tëb rek ne da ngay grève surtout que ñun nii sax même bu ko loi bi sax ñun ndox le ñu yor xam nañ importance bu mu ci réew donc lu ñu tëb rek di dugg ci dafa mel ni ñu nag médecin bi ñoo xaw a yem dinañ ko teg ci yoon yóbbu leen ci constaté désaccord mooy déggoowu leen ngeen dem inspection du travail lépp ci waxtaan. Mhm. bu ñu fa ñëwee ci inspection nag amuñu satisfaction ñu déposé préavis de justement tey seen grève tey seen grève yéen euh, bu ngeen bu demoon ba àgg ca. ban impact lay am ci approvisionnement bi pour ñun ñii. consommateur du approvisionnement parce que nag ñun ay responsable lañ xam nañ bu baax fu ñuy teg suñu tànk am na loo xamante ne ay bi mu def ndax bële paase grève bu njëkk boobu ba nga xam ne amoon na ay njaqare ak yooyu noonu boobu xëy na ñoo nguur gi la woon ndax dañu doon xeex pour bokk ci capital beeg yooyu mu bañoon nu faale tànk xam nu moo tax ñu defee woon noonu defee waaye bii suñu biir kër lay yem ñu ñoo jote ñoo suñu njaatige dañ ko lijjantee rek la ko suñu biir kër waaye xëy na bu tookee dafa kon ne def lu ko neex te ñu xam ne ci ay doole la te ko ci tappale ak mm. caaxaan ba ba ba ba nga xamante ne nag dem ba sës te nguur gi ku àtteelu mooy da nga bu doxalulee la mu war a doxal mooy cëru kilifteefam mu teg ko ci kaw nii ba ñu respecté nii ñi jox nu suñu gëdd delloo na suñu dignité delloo na suñu ak ak suñu ay yelleef ba nu seetaan bu boobaa nag bu boobaa ay la yoon dañuy jàpp ne complot la te ñoo ci lëkkaloo te lan leen defaloon bu mille dix neuf rek fa la ñuy delluwaat ñoom waaye may rassuré ñi ne tey jii doon grève dans un premier temps concerné wu leen wax dëgg yàlla. yéen fexe ba ndox bi na mu doon ñëwee ci euh, quantité bu doy ak qualité bu doy yéen fexe ba loolu. yegg fa mu war a yegg parce que nag population yi ñooñu fi tax a toog ndax ñoom seen i sutura ak seen i bànneex moom ñun mooy suñu devise mooy na population bi jot ndox bu sell te bëri te neex. et justement ci ndox moomu approvisionnement bi tey waa ñaari tali ak benn tali bëri na liñ ci yuuxu lan moo waral euh, tey ñàkkum ndox mi ci yenn quartier yi. waaw du ma technicien nag waaye ci xel mu gàtt rek ak euh, boo ko mënee comprendre mooy xëy na suñu dina amoon problème déficit loolu laa jàpp waaye nag nguur gi ak direction général bu Sen'Eau bi ñoom indi nañ si ay saafara ba KMS 3 bi démarré na mu ngi mu ngi mu ngi daw donc vraiment daal jàpp naa ne man euh, ñu yéegi ñu tàggoog ay problème mu jafe-jafe wu euh, ndox buy manqué wala bu doy. waaw jàpp daal ne xëy na fii ak kii comme koy soog a démarré. Mhm. xam nga boo ko démarré dafay am ay kii yooyu yooyu yooyu mesure ay mesures yooyu jël. Mhm. maanaam euh, vitesse ba muy dawee mun na toj yooyu mu fi fekk foog ngay réparé ak donc progressivement bu mu miin yoon bi. Mhm. ba ndox bi miin yoon bu muy jugee di ñëw di yegg si donc xam naa foog ñu defam ñu fay defar ak yooyu noonu dina du ñàkk lu mu fay yàq comme ndox dafa doole. te loolu yëpp moom la nekk di defar di ajuster di réajuster di defaraat fii di kii yooyu noonu di xees saytu di kii ba bu ko defee circulation euh, distribution bi gën a ñoŋ mm-hmm. mais jàpp naa ne moom fii ay diiru gàtt rek diiru gàtt askan bi moom dañu gis ne wax dëgg yàlla moom nguur geek euh, direction générale am na loolu def quand même situation boobu. mbir yi soppeeku na waaye li jëm ci euh, euh, li nga xam ne mooy facture courant yi wax nga ko sànq doo technicien. facture ndox waaw ndox wax wax nga ci wax nga ci sànq ci li jëm ci ñàkkum ndox mi ne de doo technicien waaye am nga ci xalaat gu gu ndaw tey jii ñu bëggoon la laajte tamit parce que ndox ñàkk na ci yenn quartier yi waaye teewul seeni i facture dafa cher lu ko waral. waaw loolu nag dama leen di bàyyi ñoom direction générale comme am nañ di direction clientèle. Mm. te direction bi am na direction communication ñoom xëy na dinañ mën tontu ci loolu. waaye ñun ñii daal ñun en tout cas la war a def moom mooy di xëy heure di wàcc heure la ñu jox ñu liggéey ko ñu def ko jàpp naa na ñu ngi koy def ndax kenn sañu te di xëy di fayee ko ba pare te doo def sa liggéey nu mu waree xëy na euh, ñoom ñoo comme ñooy njaatige ñoom ñoo ci gën a mënoon tontu loolu. d'accord ñoom ñooy war a gën mën tontu ci loolu. Mouhamed Rassoul Mbaye ñu lay euh, jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Elisabeth. may fàttali si ñuy auditeurs ni ñoo ngi doon dalal délégué personnel lu liggéeykatu Sen'Eau jaajëf.